xam nga nit ñi léegi gërëm nawe rek neex na moom hmm. ah, na fi dàq moo ko yàq hmm. kon dama nekk nit koo xam ne dogu naa ne fekk maa ngi koy man du ma dem di liggéeyal xam-xam dogu naa ci hmm. ba tax ni ma si mën a dimbalante nit rek du ma ko bañ. solo bu baax a baax a baax xam na ñoo xam ne mbir mi jaay la tudd sa waaxu dikk gi da nga dajee man ci mbedd mi da nga daj dama bëgg a dajee rek sànq hmm. waaye su ma ko defee dama la wax li may wax doy na loolu dootuma ci dara tontu rek hmm. wax dëgg daal bu ko boobu bu jarawul daal dafa jaxase nga da ci sonn hmm. waaw loolu dama ko jarala ci ma itam wax dëgg daal bu ko jarul daal jarul waaw yaa ngi nekk nii ci genn kër genn kër yow ci nga nekk nii fii yëpp benn kër rek la heure bu ne muy la ram bu ne muy la mu ngaa tan yu bëgg daal ci moom kii moom dëgërwul la dara dëgërwul la dara waa ko doon fekk mooy taw na ko fu ngay jàngale wala fu ngay taw na ko dama bëgg daal loolu mënuloo lu tax ñu la jàngal xam nga jaroo ko waaw xam nga da nga ko jarut waaw te nag wax dëgg yàlla taal ko dure alal xanaasiir yi yooyu ku ko am da nga takkal kañ biir loolu kenn du ko def waaw loolu kenn du ko am da nga takkal da nga takkal ndam kooku loolu kenn du ko def waaw xam nga ko waaw yooyu kenn du ko am da nga takkal ndam kooku loolu kenn du ko def waaw parce que xeewu ko waaw xeewu ko xeewu ko waaw dégg nga ba xëyagu ko xëyagu ko xam nga man dootuma jàngal kenn xam nga dootuma ko def lan mooy maanaam rek bu dee kii def soxlaam ci mbedd mi ko def dama bëgg a dal ci dama bëgg a dal ci loolu mooy lan léegi am na ku ma ko def dama ne ko li ma war doy na dama ne ko li ma war doy na lan laa ko waxee xam nga jarul ko xam nga jarul ko comme jarul ko ko jarul ko rek waaw comme jarul ko ko wax dëgg yàlla li mu ko jarul na ko waaw njëkk bu baax a baax. njëkk bu baax a baax. kon man ñemeelu ma ko kenn ci ñi nga jàngal loolu man ñemeelu ma ko ba fi mu ne nii ñemeelu ma ko kenn ci ñi nga xam ne jàng naa ci ñoom. waaw ba fi mu ne nii laa wax. te loolu ko maanaam ne suuf yoon. maanaam da nga xam ne ñoo gën a tolloo maanaam ne suuf yoon. waaw yaa ngi ko war a seetaat bu baax. waaw. te kon yow mën na la bàyyi yaa ngi doon joxe ne wóor na la nagoo la. mu ngi doon joxe ne wóor na nagoo la. impuissance bi dafa yàlla lu toll ne tànkam jàll nga ko di ko dogali ci yoon loolu mooy lan seetlu ko baax su ko yàlla mën na la bàyyi seetlu ko rek waaw am na maa leen nag suuf leen maa leen doon yoo xam ne mag leen leen ah da ngeen war a set baax a baax da ngeen war a set da ngeen war a set baax a baax man dama nekk nit koo xam ne dañ koy laal li may li ma nekk dama koy wax mu jeex waaw li ma nekk dama koy wax waaw ku ma ko defati dama laa wax ne li may wax dara waaw ko xam nga jarul ko waaw danga taalee ko dina alal kenn jëri mooy lan jëmmur di ko takkal maam ko loolu kenn waru ko def xam-xam kenn du ko ko waaye te loolu li doy wut ñu ko waaw ah daa am lu lan te ñu ngeen féetale nit la fi jaay kaas yaara dugub mu ne ah. ko ñu soxla wut mën naa def waaw loolu la bu baax a baax loolu la bu baax a kenn ci suñuy kilifa dafa mos a am ase dafa mos a am fu mu dëkkoon amoon benn nekk ci àll ba. Hmm. li mu daan fa dem mooy leen ñaanal. Hmm. benn waay bu bàyyi ko Ndakaaru wala feneen. Hmm. ne bu yegg si laajte sëriñ ñu ne ko mu ngi ci nekk ba ci àll ba mu dem ñu dikkee dañ ah sëñ bi sori na. ne ko loo taataan mu wax ko mu delloo ko ne ko demal comme dañoo sori kay ñun jéggal nañu. <laughs> waaw kon dañoo sori ñun jéggal nañu demal. sell la ku baax waaw la ku baax amul benn ci yàlla bu ñàkk fayit loolu xamut xamut waaw comme mën a doon la ñu rek xam na nañ ci jotee waaw la ku baax loolu man ñëwee ma ko kenn ko xam ne man jàngee naa ci loolu ñëwee ma ko waaw la ku baax wax waaw mais daa ñëw rek ngeen ko seetaat dana fi am bu baax a baax te rek nit def na ma ko waaye dama ne bu ne weer benn waaw la ku baax wax lan mooy maanaam di dogandiku def soxlaam di soxla bu toll noonu loolu mooy lan di dogandiku ne ci soxlaam def bu toll noonu loolu mooy lan loolu dafa jaadu. tamit waaw ku war yow moo la mag foofu yoon moo la mag foofu yoon mën na la bàyyi. keneen ku baax a baax a baax rek. waaw nga bëgg moom nga lay futteeku dana jàng ngir yàlla. keneen ku baax a baax. keneen ku baax a baax. waaye daan doomu sañ aar la. daañu war na ko liggéeyal lu baax ci suñu sëriñ la. du bu ñëwee nag soxla boo xam ne du jàng si. Hmm. du boobu daanaka du nangu ñu ni mu ko jaralee rek. Hmm. waaw. jàllale ko baax a baax a baax. Hmm. bu ñëwee bu baax bu ne jàng si nga ko andi. daanaka du na du du du nangu ñu toog. te da ngay seet sama baax nag. waaw loolu baax sama baax nag. waaw. jàllale ko ku ñu bëri dawarmaal loolu la ñu war a seet nag ku ñu bëri da war maal la nag waaw. parce que loolu yëpp da dafa aajo seet dafa aajo seetaat bu baax a baax a baax. Hmm. dafa aajo seetaat bu baax a baax. Hmm. dafa aajo seetaat bu baax a baax lépp boo leen neex na rek ñu leen la fi dàq boo leen neex na rek ñu leen la fi dàq loolu mooy lan loolu mooy lan. Hmm. boo leen neex na rek ñu leen la fi dàq yaa ngi jàngal nit ki xattan nga koo leeralal bu baax a baax a baax. lu yow soxla yow ci leen dara lu dul makkam rek rek rek waaye loolu doy na waa ji ma ko doy loo waaw makkam dana fi mu leen fay dama dama dem ba muy yàq xam-xam sax moom du ko faale waaw xanaa bu baax a baax man gisuma gisuma ci xew boobu xew bu jaar kenn nit da dayo kenn nit man waaye xam-xam bi ngeen bëgg leen laaj daf leen ko daf leen ko daf leen ko daf leen ko am nga da waajo seetaan gisuma ko bu baax a baax البيت البيت يسري لما انا جامد جامد بالي اتم المدير قام بالي من انا لا تنم انا بالي من ما يتجي كل جامد من منكم انا بالي dama sonn dina gànna ko la diir dama sonn na gànna lan mooy lan ma dama sonn diir wala ma doole mën naa yëkkati lu diir waaw dégg waaw ren wala ma xam-xam ban am ci njëlbeen lay sa dén moom ar yan mooy lan sa yaram gëdaa ji neex digal bu baax a baax la yàgg na dina naqari waaye dama ko mënti nekk wax na mu dina naqari lool nag waaw parce que doo ñàkk tey jigéen gu mat doo di fale di leen leen leen nga bëgg a jëlee ci nit ki waaw du nit ki sax nit ki moom man ak nit ki ak nit la ci nit ñi rek waaw lakin li mu nekk ay na leen jënaatul xam dal yooyu huit patar lañ al mu tawa bëri bëri bu aji foor la la diisoon aji foor la laa yu xaaru wala irin te aju sañu la. mu taabidun aju sañu la itam. Mm-hmm. an kulli fat nañ ci lépp aju diis. Mm-hmm. aw xadim ku la aju daabi. waaw mm-hmm. fokk si rek da nga koy jox cër. doo taa mën a jëriñu. waaw. waaye lim bu ci dara. dana tëral nga lépp la dajee ci sa loxo loolu la ñuy tëddee. te lim bu gàttaloo ci dara. dafa aju seen waay. waaw. waaye lan ñu fi mu wóor doomu wala ñëpp tere kiiwu ko basum mm-hmm. xob mm-hmm. wala ñu sax te leer na ko borom mm-hmm. yëpp nekk na dem ci sànniw xet biir loo xam ne dañ ko jëm set ñu daanu biir loo xam ne dangaa xiir itam li ci baas mu fàddal la ko biir loo xam ne dañ koy sànni xet kata yi ngay kata yi ngay jàppee rek wula ëpp doole di ci jàppee rek wula naaw di jàppee rek wula wala wula gën a gaaw kata yi naxante yéene mënoo cee dëgg xam xam ba xel bu baax la mënoo cee dëgg am xam-xam jot lay suuf ba lay mbóot ma loolu mënta nekk mm. waaw xam a mm. da nga koy jox lim laaj mm. waaw na soo man dama nekk nit ko xam ne su ma tasee day wax damay wax rek du ko rek waaw parce que boo nee loo gis ne bu yàgg la mën a xadi woon na soo xulumi wa himmatin وجواد فكر تمتطيه مؤذر أبدا بأقطار المدارك مسجدي خير الأوابد لا يزال على الونا في كل موعظة يروح ويعتدي من بعد نفع الروح في استنقائه ومذاق صبر للهوايا مسخدي وتفكر وتدبر وتفبر وتضرر وتقصف وتمعدد dafa wax ne xam-xam xam-xami nit yàlla yi duut lu ñuy xamee ci naxante dañ koy jaaree ci yoon wa rek xam-xam dañ koy jaaree ci yoon wa rek lakin li fi nekk fal yu tafayat nara dees ko moom xam-xam yi bi asraakil xuloomi ci ñoom xel yi وهم خجت نفادة الأغراض بيه يكون في جبلي حاجتم مويسة هت نيار للول الإمام الغزالي رحمه الله dafa mos di dox dajeeg ay wayu ñu agressé ko jël yore bi ko waa ji lim yore mu jox ko waa ji dem mu ne ko dama bëggoon nga may mu dafa am lu ci nekk. te duut lu lay xamal njëriñ. te man soxla naa ko. dama bëgg nga jox ma ko te ma bàyyi la li nga am li nga am soxla. waa ji ne ko lan la mu ne ko ay këyit yoo xam ne dama ci bind yenn taqriraat ci wàllu xam-xam te su ma liggéey mu la bëgg nga bàyyi ma ko rek yóbbu li ci def. waaw te loolu bu baax a baax këyit yan kàmbat yan yéen bëgg a liggéeyee ci xam-xam yore la soxla. waaw yore yore la soxla yore la mënta muñ. waaw waaw mu ne ko dama am dama am ay kayit yu te bagage yi nga am daf am yoo xam ne dama yu ci nekk. Hmm. xam yu ma see bind. Hmm. maanaam mbir yu ma ca kàbba. Hmm. ne man a naa ne amuloo ci te man amal na ma njëriñ dama bëgg nga bàyyee ma yooyu te yóbbu li def. te la dëgg rek. waaw lu lu lu jar bàyyee xel la xam-xam boo ci boo koy wut daf lay yitteel. waaw ah, daf lay yitteel. yu ko. bi afraakil xulubi mm-hmm. te ñoom xalila mm-hmm. wa himmatin ak hitte nafadatil ahraad bay wayaakoon ci jublu yi mm-hmm. wa jawaadi sigrin ak naaru góor waa moom xilaat la kam sa tiihi ko war te itam nga def bari settantal settantal boobu eh, bu jox dégg gu nga romb fa nga tollu xoon ak mel ni fasu naaru góor bi nga war heure hmm. bu mu demee rek rombale la fa nga tolloon hmm. mu awilin wuraaji téppérlu hmm. dox bëccëg abadan paw bi aqtaaril madariki ci gox yaa ñoom madari yi lañ mooy jotuwaay yi lañ mus idin buraaji tëkkoo tëkkoo dox tawiit mooy dox bëccëg idalaaj mooy dox guddi is aat mooy boole guddi ak bëccëg di dox da ngay def sa xalaat muy mm. comme wa fasu naaru góor mm. boo xam ne da nga koy war muy dox ak yow wi ban wa idlaay dan wa ifsaada mm. sallallahu nga dem ma daal di ñuy mu drag koo xam ne bëgg liggéey sa xel rek loo fa mën a jëlee xam-xam bu am njëriñ bokk na ca mbaax ak yàlla bi nga def ci sa tànkal bokk na ca xeebu àddina bokk bokk na ci mbugalam safara hmm. eh, ay mbir la yoo xam ne loo ci te awale yoon xalaat ba rek hmm. mën nga daa jëlee lu la jëmale ci yàlla hmm. ah. nga ko dawal ci sa ni moo ko def te neexu nga def ko noonu ko bëgguñ nga def dawal ci ay bëccëgu ci àddina mu nekk rek wa jawaadi fikrin ak naaru tamtati yoo da nga ko waro hmm. muazizin walaa ji téppérlu abadan faw bi hmm. aqtaaril madariki ci gox yaa ñoom jotuwaay yi lañ hmm. mufsidin walaa ji taxaw tax mu mudrak mooy képp koo xam ne ba ko dawalee sa xalaat rek ah mën nga caa jëlee loo bindee ko waxtabiroo yaa ulil absaar ak cosaan la dégg nga qaydil way jiitu xalaat boo xam ne dafa mel ni fas ngay rëddee hmm. te nag bu dee taay a sori hmm. lay jël ah, dana leen gaaw a jot ba mel ni ko leen tënk hmm. mooy xalaat boo àgg fu sori fu mën a génne dégg gu sew laa yasaalu dumu dañ yaroohu de gont wayaxtadi te muy xëy xalal wanaa ànd ak sonn ànd ak doyadi fii kulli moobi satin ci bépp jafe-jafe waaw ah, xam-xam boo ko bëggee dangay liggéeyloo sa xel bu baax a baax mm. xel bu baax a baax a baax mm. ah, xel mën nga tëral yoon mm. waaye yoon moo soxla xel su ko defee nag xel mi bu settantalee ci temps li mu sore dégg goo leer lay am kenn mën na ko waxee de xel du tëral benn sëriñ aluma fi sore xitaabu rabbina al muqtadi fi alal mukallafi waaye sëriñ yi nag mën dañaa ko soxla ci xel ba kullu taglifin bi saatin aqli gisoo di wax ak moo tax settantal ci taalimu saniya dana indi xam-xam yu leer a leer ci dégg a waaw waaw xam nga di wax ak waaw kullu taklifin bi sarti naqli lekkoon du soxla xel kon taklif dafay bokk ci dégg nga min baadi nasar ruuhi ci gannaaw dindi ruuhu fi sientaayi ci mayum ci jëlam te itam da nga ko jox lépp da ci day eh, ba jox ko sa bakkan. Hmm. Ah, hmm. ba nga xam ne dee moom moo hmm. ah, nga mën a xeex ak réer de. da nga mën ba am ca xam-xam cër. ma daa koy sabrin ak moso lu wex. mos na waaye ay tuuti. wa tafakkurin ak settantal xalam. mooy li ma la wax noonu. la gëloo sa settantal. ci wa tadabburin ak settantal nga seet ni ko hmm. ah, si nga xam ne borom sëriñ bi andi na ko ci kitaab ak sunna ngay settantal seeni maana bu baax wa tasabburin ak muñ waaw ngay ga bakkan ci li muy bañ a am da ko ga ci muñal li muy yóotu te dul lu war a am wa tadarrurin ak loru lorulu mooy amee melaw koo li tax ko laaj nga nangu amee melaw ko soxla li sàkku li sàkku laaj nga nangu mm-hmm. moo tax xasufin ak ñëgas ak dund mayu texet waaw mayu texet su leen ko baax a wax waaw mayu texet su leen ko baax a wax su la fu saalee dañ daan toog ci suuf waaw mm-hmm. waaw mm-hmm. ah, dañ daan sol yu tilim dañ daan sol yu diis waaw su leen ko baax a wax waaw ah, mayu texet dégg nga wa tamaadudin ak maat maat li mooy mi ngi xii waaw baax na ko tawassulin wa taharrunin wa tawarrudin wa tafarrudin wa tahajjudi wara waxfi naxli sawru siyaabihi wara sawti naxli naylul arjudi wa amaama asbaafi laali xawsatun fi lujji wa tiryaaqu summul aswadi وسكر ينتظر مضطري بطل لن لقى والليث يحسب الصرع دون السفر دي شرعا ليس يخطئ في امرئ إني فيجني من جناه ويهتدي ما وتوسل أو أي وسائل moo jumtukaay yi tax xam-xam mën a am hmm. dañ koy wut hmm. wa tawassulun ak jàppaleku hmm. jumtukaay yooyu boo ko wutee nga di leen la dooloo ci li ngeen war a soxlaa taal lamp day waxtaan rek yéen lamp du liggéey dara taal dina day waxtaan rek yéen ngeen matt du liggéey dara waaw jël téere yi rek te du wér yéen ngeen téere ma du liggéey dara waaw wa taawulun ak jàllarbeeku. Hmm. mooy da ngay jaral di jógee di jógee su ma nekk. Hmm. damaa ba foo ko mën a amee. Hmm. wa ak tumaranke da ngay ñëwee itam tumaranke. bari yoo mën a muñal daal. te nit ñu bari aawa ca. wa tabarrudin ak beddeeku nga ñëwee wéedaay. wa tahajjudin ak foog nga ñëwee ñàkk a nelaw waraa waxtu naxli nekk na ci gannaaw matteeg yëngu sawru sihaadihi nemm ay xobi lemam soo bëggee ci lemam yëngu da ngay muñ matt gam lay matt waraa sawtu naxli nekk na ci gannaaw déggi tàndarma noonu la argi di am cëgg soo bëggee cëgg tàndarma da ngay muñ dégg lay jamee ca garab loolu daal boo ko bëggee. maanaam hmm. mbiram teranga la. dafay hmm. mujj coono yoo xam ne ut gën a ut gën a. Hmm. wa amaama addaatil la aali. nekk na ci kanam suuf si xalaatu loolu yi. rawsatul xóot si mujj ci lëgg. wuro si loolu. balaa génn. kos ci ndox mooy am. woto yàqu te yàq suñu ak weddi toogoo jàmm bi ñëw la. te yàq lu ñuy xajoo la. mooy jàmm bi ma gën koy jëlee. loolu moo tax mu def lam laaj ci sonn kon ko ca def lam laaj ci njàmbaar nga def ko ca wa amaama afdal la ali nekk na ci kanam sa def loolu ay sa tan xoos lubbi ci lagg patriya patriya mu ahwadi kooku jaan la wa sakkaru jaageej yan tabiru dana mu dajale ak tariba taram ñu dàq lan la ah waaye waxuñu ay nag yu jaaxal la na ko jaaxal bu dàqaram. yàlla hmm. bu koy dàqaram. Hmm. wala su dee la yasa dana mu dikkal asara jébbo. doon na soxla gën wala mu ne gaynde koy def. waaye hmm. sufri du ko def. loo xam nga ci am njàmbaar. ci la war a sottee. ak góorgóorlu. soo ko sémbee. da nga war a sànni neenal. da nga war a sànni mu ne yorewul xam-xam saroon mbay la. fii mm-hmm. nii mun dana ko tëloo. mu ne xam-xam comme mbay teew la xam nga jiw ngay toog ci nawet. Mm-hmm. dara ci bañ jëriñ lu war a jëriñ. xam-xam comme loolu la. Mm-hmm. mu kotti mun dana ay ci kotti tool. waaye te di suñu mbay bi. su ko defee lu tool la laaj. muy gàtti. ak taw. ak kii yaa ah, dégg na foofu daal. ak saa yoo turbatan min lubbihi laysa bimilhin aw kanoodin arbidi وجدا من التوفيق حتى ننوى من طمع هواء صافيا لم يفسد وهناك ينمو غير أن ثماره حتى إذا أحصيتها لم تعدد وأجل معبوط به ومنافس ذو الأطيب الأبقى الأجل الأعودي عرفان رب العرش ثم صفاته وفعاله فإلى خفاياه اهتدي kon jàngal loolu day wax ne xam-xam comme mbay la xam nga jiwu ngay jël teg ko ci barab ko jagal bu sottee fekk xamal la njëriñ lu xam-xam itam noonu la mm-hmm. lu ñoo teg ci barab la mm-hmm. da ko jagal mm-hmm. bu njëriñam dikkee nit ci mën caa deferoo wara nga comme mbay teew la ni mbay teew la li tool laaj nag la laaj tool dafa laaj gerte bu mu jéggóot dina jaxa xorom ji yoonu moo taw rek dana ci da taw waaye kenn xalaatu jëmbat ci dara kenn xalaatu ji ci dara li ko def mooy suuf si moo déggoo rek mbay kon beneen boo koy def fokk si da nga seet suuf si déggoog la ngay bay beneen ba nga taw mooy day taw waaye si lum ñor ñor bu tawati du tàkkee noonu gàncax beneen ba nga toll mooy dañoo toll ci jamono boo xam ne jaww ji déggoon ak mbay su nii ñu toll xam ne noor la ñuy wax léegi mu dugg bu tawaan kenn du ji dara ndax xam ne ne jaww ji déggoo lu ñuy bay taw la ñu xaar ba ne noor jeex na nawet dugg na mu taw ñu doog a bay xam-xam itam nag bu dee layteef mm-hmm. yooyu la la laaj mm-hmm. ratayu saa di fa batam mu dajale mm-hmm. tur batam suuf min lu bihi laala moom xalam la laye sab si soo xam ne déet moom bi mil hin muy xorom aw kanoodin wala suusu hijaan mooy su su gàntu xar bi din turaaji kekke su dëgër il faut rek gàtt bu nangu fa koy ji mu mën a sax màgg ñor bu dee xam-xam nag jàtti mooy xel mm-hmm. ah nit ki il faut xel mi mm-hmm. mën a xam ak bëgg a xam ka mm-hmm. gaay ne su ko defee xam-xam man caa placé sax ca ba jëriñ lam war a jëriñ yu saa di fa bata mu dajale pour batam suuf min lu jëhi ci xelam suuf soo xam ne lay se déet moom bi min hin muy xorom aw kanoo den te du suusu heejaan xeer bi den su daaji eh, su daaji tekk mooy su gàlla su su su daal loolu lay dajal mhm. wajadan ak taw mhm. mina tawfiq ci tawfiq mhm. hatta nan bayda te faa koon dafa am taw itam taw bi li muy doon mooy tawfiq sama borom daf dafay def ci yow kattanal hut ko dafal la sens ab xam ko nga ko wa mu dajal min tafen ci jikko xawa an jawwe saafiyan jiraaji sell lam yaf sut de yàquwut te itam nga xam ne bu ko mën dalal jikko bi moo toll ak jaww ji gis nga ko baax a baax nit bu wut xam-xam pour ca xam-xam ba dafa war a seet jikko yi nga xam ne ci la xam-xam de jëriñee nit mu tànn jikko yooyale su waa xam-xam bi bu dikkee jikko dalal ko dana mën a déggoo ñoom ba mën a sax ak nit ki nit ki mën a jot sirrum deferu waaye su fekkee jikko yooyu amut hmm. kon teewal ne rek moo fay ne hmm. waaye deferu du ca am hmm. dégg nga law am na seen elmi min dooni tuqaa sarafan su fekkoon xam-xam bu ñoo soowee nii rek loo am la la kaana asrafu xalqillahi iblisa konoon iblis moo fee gën a foor ndax amut kum fee pour xam-xam amut kum fee waaye yusbihu wa yumsi fi laanatillahi la yusbihu wa yumsi fi laanatillahi mm. ah moo lay xamal ne xam-xam balay jëriñ mm. dañ ko ju fa ànd ak jikko yu déggut mm. du lu ñuy faaroo dégg nga ah, dañ ci dañ dañ ko jaamu yàlla rek dañ ko jaamu yàlla rek dégg wajanan ak taw mina tawfiq ci tawfiq hatta nan du date faakoon wa mu dajal min tafen ci jikko xawaan jaww saafiyan bilaa ji sell mm-hmm. lam yasut de yàquut xaw mm-hmm. naa ko ca foofu yan moo lay yokkoo mm-hmm. mu ne bu yooyu lay mën a màgg fekk jëriñ comme léegi see tool bi xayra an na simaare woo ndaa ay meññatam nag sotta way tàggaloo lañ waane dafa bëri meññat ndaa ay xeet la léegi see mbayteef yi day ko ay meññat ndaa ay xeet la idaa saytaa boo leen na ma lam toodat defu leen lim mm-hmm. mu ne xeeti meññe tam soo leen bëggoon a lim mënoo mm-hmm. leen a lim ndax ay xeeti xam-xam ndax ndax ay xeetam fañ bëri comme ni nga gisee xeeti mbayteef yi mm-hmm. su ko defee mbayteef yi ñaari xaaj dafa am mbayteef yoo xam ne ab diit lay am lay dañ ko dundee déedéet lu mel ne xaal yi nga gis bu ñoree daal bëri fi trop waaye bu jeexee rek na te lu mel ni jaxatoog tomate yooyu hmm. ak kanja yooyu hmm. bu ñoree daal bëri lool hmm. waaye bu jeexee rek jeex na am na mbayteef yooyu noonu lañ demee mu am mbayteef yooyu nag moom boo bayee ba am ko moom buñ toll wut ci jamonoy mbay itam lañ ca amoon mën ngaa yooyu da ci dund mbaa nga di ci defaree li nga dund ñu ngi suñ gerte suñ diw gerte yi ak yeneen xeeti mbayteef yi ñoo def diw ñaar xam-xam itam noonu la dafa am xam-xam boo xam ne man nag la yem ndax li ma jàngale foofu la yem mu am xam-xam boo xam ne nag li ma jàngale rafet romb na loolu jëriñam day nga am na ci yoo xam ne seen lool li bu ñoree day bëri lool waaye bu seen lool ne toll nañ ci li wala tolluwuñ ci seen lool yëpp nit nit ki mën na leen a di ci dund subaana booy bay soo mën a boole xeeti mbay yëpp bay leen moo gën a domat baax na lool soo leen mën da boole nag da ngay gën a hirteen li nga xam ne moom bu loolu wéyee hin nga mën di ci dund xam nga waaw waaw soo mën a boole yëpp bay boole yëpp rek bay lépp baax na waaye soo mën da boole yëpp bay béykat bi nga xam ne boo ko amul doo mën a dund. Mm-hmm. boo ko amee ci ngay mën a dundee nga nga jiital boobu. Mm-hmm. te mu ñëw bële. Mm-hmm. xam-xam bu mu mën a doon. gannaaw dut xam-xam bu lay xaajalee jaamu yàlla. da la leen teewal sëriñ rek. xam-xam bu baax la. boo caa defaree sa dina baax na. boo caa defaree sa laaxira baax na. su fekkee waaw waaw mën nga boole mën nga boole yëpp xam. su fekkee mënoo boole yëpp xam nag. nga seet bi ngay defaree sa digganteeg sa borom daal. mu gën la yitteel mm-hmm. moo dee gën mm-hmm. waaw moo tax ne meññal yi bañ bëri mm-hmm. soo mën a boole yëpp baax na waaye soo mën a boole tànnal bi yëpp njëriñ ren waa jël lu max bootin benn jaay màggi lu ñu ñeetoo bi ci xam-xam wa munaafatin ak lu ñu gàngirante du gën ci bu ñu ñeexee nit ak bu gën ci bu ñu war a daw jëm ca sul adiya bi mooy borom la gën a teey a abqa la gën a det al ajalli la gën a màgg al awadi la ëpp njëriñ mooy xam-xam ba gën a sell ba gën a foor ba gën a mat njëriñ ba gën a sax boobu daal gën a yeyoo jëm danaa jëm ci yëpp mën na nekk danaa jëm ci yëpp mën na nekk mooy xam borom xaraf nit ki xam bu baax ne borom laam suma sifaati yi topp ay mu xam boromam boobu ci melooy matam ya xam ko ca sax ga di dund xam ko ca meloom ya xam ko ca sax ga di dund xam ko ca kattan la xam ko ca coobare ko ca xam ko ca ka xam ko ca la may wax de santaane ka aaye mm. lii nit ku nekk mm. war naa ne am na borom boo xam ne mm. melo yi ay meloom la lii nit ku nekk war na koo xam fi naa lii yaa ci jëfam mu xam ne borom bile mooy ki ko bind lépp lu mu baax ne da ko faaroo borom bii moo ko def ci moom lépp lu muy ragal bu jaay mucci borom bi mooy kii koy fanqal mu xamee ko noonu fàtte di na nga gindeeku ilaa xafa ilaa xafa yaa ko jëm ci na gum may nañ ci am ak gindeeku bu baax a baax wa madaari hada al abdi fi atwaarihi min yawmihi wa gadin wa min ayna tudi tilka al maarifu laa shaqaashiqu naafisin yahdi wala yahdi xatimin milbadi wa madaari hada al abdi ak waruwaay bile jaam ci atwaarihi ci jamonoom nit itam xam mbiri jamonoom hmm. madaari haadal abdi ak wéruwaay bi la jaam ci hmm. atwaarihi ci jamonoom hmm. nit itam xam mbiri jamonoom min yawmihi ci teyam mu xam jamono bii mu lu ko war ci diggante ma boromam waxadin ak ëllëg muy bàyyi tel ëllëg ne lu jar waajal la wamin ay na tuddee ak fañ ko dooree mm-hmm. mayekkal démb ne dafa am lu mu kóolante woon ak boromam mm-hmm. lii la war a xam mm-hmm. ba mu daal haadal abdi ak wóoruwaay bi la jaam fi atwaarihi ci jamonoom min yawmihi ci tayam din ak ëllëgam wa min ay na tuddee ak fañ ko dooree tilka loolu almaarifu mooy xam-xam yi laa shaqa shiqu naafisin waxuñ puuriti aji tefli yahdi koog dana beddan wala yahdi te duy gindi xasimin ku daaji xuloo mil dadin ku daaji tajji xuloo mooy lii mooy xam-xam waaye da soow nii rek ba wër nit ñi loolu du xam-xam loolu nit mënee na ko ci wayu saytaan yi loolu moo tax fa inna sayatina la yuxuuna ilaa li yujaadilookum loolu du wina alayka jaloson naa sa bopp walaysa al ilmu siqsiqatan bayna rijaali walaysa al ilmu kal xutabi al ilmu sabrun wa ixlaasun wa makrim wa makrumatun wa suhbatu seyxi bi tawqiiri wal adabi ba mu àgg rek wala nam ko waxee fa ida taxallat bi tanassuki wa tuqaa wa inaabatin lil maaliki al mutawahidi أفرد بتاج في جبين مملك من أسجد في لؤلؤ وسبرجد فإذا تحلت بنت كايو jël jël na de amul jël buñ takkaayoo ñoom xam-xam yi bi tanassuki ci jaamu wattuqaa ak ragal yàlla nit lii mu war a xam su ko xamee boole ko de góorgóorlu lool ci jaamu yàlla da def li ko yàlla sant da bàyyi li ko yàlla tere xiyaaman bi xaqi rububiya ndéel sàmmante li ak borom laaj wa inaabatin ak dall lil maaliki ci yàlla mi raaji al mutawaxidi ku raaji wéet mu ne li waa ak rat bi taajin ci nëpp mooy mbaxanaam bataajin ci ndëpp fii jabini malakin ci jaxa buur min afjalin ci wurus fii lu'lu'in ci luulu wa sabarjadin ak sabarjad mu ne dafa war a mbaxanaam wurus ci boppa buur mu ne xam-xam bu am njëriñ bii soo àndee teg sa tànk ci sëriñ bi di góorgóorlu ci jaamu yàlla dafa war a mbaxanaam buur mu teg mbaxanaam wurus mu tegee ci boppa buur mbaxana mi moo koy signalé bañ xam ko man ko jox xormaam kon ci li koy xaar la bokk waaye jëmmi buur bee gën a foor nag mbaxana mi seetluwala ko seetluwala ko ah jëmmi buur bi li ci nekk ba mu xëyoo buur bi wax dëgg yàlla mu xëpp mbaxana mi waaye mbaxana mi buur yàlla nag musal ko mbaxana moom moo koy ne kii mooy buur bi ñu jox ko xormaam kon ma xam ne ci li koy wattu la mm-hmm. xam ko gën a foor noonu mm-hmm. la mm-hmm. nit su fekkente ne dafa am dafa am maarifa da toppatoo sëriñ bi sëriñ bi moo koy aar ci lay amee jàmmi àddina ba xaqiqaam du yàqu ci loxoom ah, ba mana sëriñ mooy aar xaqiqa ànd ak itam nag ànd ak itam nag xaqiqa nag moo gën a foor sëriñ ndax xol bu dund ci xam yàlla ak dafa dañ koy dund ak ran mu xeeb bi taajin imbaxana kindatu fii jabini mu mallakin ci jëme buur minaan jërin ci wurus fii loolu in ci loolu wa dabar jërin ak dabar jët wasarat mu xeeb alal xulali ci kodday an na fa it yi daway yi daway foor wal ula ak itakaay faw xalaata bili ci kawe jongama ana dara ñu dee xeeb an nu xeeb ñu daway yëkkate ko ci daal kunanun tasannama tasannama aljunayd wa hizbuhu مثلوا بها طرفا فوق الفرقد تلك المكارم والمحامد والعلا لا عرس تفتيه في قعب أبي تلك الرياضة لا رياضة رابة ربان بين تنصر وتهود أيعد نفرا كل ما مستنصر ويعد ليسا كل ما مستفسد سلكوا بها في منهج أعلمه مسموكة للسالكين معبد kon jàngal la mm-hmm. mu ne ku ne nun ay daraja yu kowe la mm-hmm. mooy njubbi daj la tafan mm-hmm. namaha yooyu kowe na ko yéeg na ko al junaydu junaydu wa xisbuhu ak bu mën a xam-xam bu wér bu ànd ak nangoo jaamu yàlla mooy tasawuf ci la saada soofiya rawee nit ñi waaye du leneen a xam-xam bu wér bu ànd ak tegee ci siratul mustaqim moom la saada soofiya rawee nit ñi ndax loolu naka la wàcc nañ bihaa ca konan yooyu mm-hmm. sarafan ci tedd nga mm-hmm. wayqal farqadi ci kaw ñaari biddiw farqadaan yi mm-hmm. moo leen tax a àgg suñu àgg ci daraja tilka loolu almakarimu mooy tedanga ñooy tedanga yi wala tilka almakarimu yooyu lay tedanga wal mahamidu ak yooyu lay cant wala laa ay yooyu lay hmm. laa aarisoon du saw mu forox de mu xam ne taf xiifi foot dañ koy sarwi hmm. fii xambin ci da ci kaas hmm. adin bu daaji ndawe mooy teraanga yi amul àpp de du coow su forox coow su forox nekk ci kaas bu tuuti tilka loolu almakaarimu mooy teraanga wal mahaamidu mooy cant yi wala wala te ñooy kowe yi ñoom saada teraanga yi ñoo am ci seen diggante seen borom mm. du teraanga yi doon de mm. maa indakum yanfadu wa maa inda Allaahi baaqin mm. mooy teraanga dëgg itam mooy li jar jëmmal laa aarisun waxuñ soo mu forox mu xam ne taf xiyu danga ko sarwi fii xaadin ci kaas adin bu daaji ndawe waaye coow su ci kaas boo tuuti loolu amul solo ne tafa dina bu gàtt bii ak pañal moo xam ne coono ba xëpp njëriñ la mm-hmm. kooku du dayo mm-hmm. ayoat du deefu lim mm-hmm. tilka loolu a riyaadatu mooy tàggatu li mooy riyaada la riyaadatu raadati ruhbaan waaye du tàggatu way tàggatu ruhbaani a riyaada mooy ngay fàddu nit ñi ab diit te sa borom rek tax mën naa am gën a féex ak yokk jaamu yàlla xam ca wala yokk jaamu yàlla du ca hmm. waaye gën a féex ak ko am ca. Hmm. wala du ca hmm. wala waaye gën a féex ak ci ayib bi jaxasoo am ci. lu mën a xawee dana am lu mu jëriñ. dégg nga waaw waaw mooy riyaada. ne da nga koo sori nit ñi. dégg nga waaw sa borom rek a tax. subaa nag féex ak jaamu yàlla mën na caa wala lañ daan def rek nga def hmm. waaye gën a rafetal nga mën na caa am hmm. wala nañ ko daan defee rek nga ko defee hmm. waaye gàcce jaxasoo moom mucc lépp mu ne mooy riyaada mu ne lii mooy riyaada saa soo xamee ne nag heure bu ne yaa ngi jaar la xam di jaar loo rek da ngay doon ko xam ne heure bu ne yaa ngi ci riyaada maanaam laa riyaada tu raadati ruhbaan du na te na surin ci diggante nasaraanu wa tahawudin ak yahoodu arrobaan aw nit lañ ñu yàkkana ci yonent yàlla Iisaa ñu xam ne lépp àddina dañ ko jox gannaaw duñ takk soxna xaral seen jaamootaay yi rek loolu nag dut lu xam ne Iisaa moom moo leen moo ko santoon ci njëlbeen ñu àndoon Iisaa ñoo baaxoon lool xiir ci yàlla lool ba gannaaw gi ñu gas seen bopp ci dëddu àddina googu mm-hmm. waaye du doon luñ farataal ci ñoom xam mm-hmm. ne gannaaw bi nag lañ dem ba nañ ko waroon a sàmmee sàmmee wuñ ko ko mm-hmm. wa jaal naa fi qulubi alladina tabaahu wara wa rahmatan mooy ñu toppoon daal ñu leen meloon ñu baaxoon lañ la wa rahbaniyatan dafoon nañ ci ñoom rahbaniya mu ne ibtadaha ñoo ko sentaloon seen bopp nag rahbaniya boobu ma katabnaa alayhim du ñun ñoo ko farataaloon ci ñoom mm-hmm. illa ibtigaa ridwaanillah xanaa daal ñoom ñoo doon sàkku ngërëmal yàlla rek fama fama raawaha xaqqa ri'aayatiha def nañ ba na kanam la na yàlla mm-hmm. toppatoo wuñ ko fa atayna alladiina aamanu minhum ajrahum mm-hmm. waaye ñu góorgóorlu woon rafetal ko ñoom jot nañ njëriñam wa kasiirun minhum faasiquun lu bëri ñoom ñu rafetal mais loolu li saada soofiya da def li jullit ñi def soofiyatul muslimin da def moo ko ëpp solo suñ ne doyee ci dara nit ñi itam bokkuñuy pas-pas bokkuñu ñuy liggéey ayohaddu deefu ndim nasran muy tan kulluma mustansirin bépp aji tan tandu du picc mooy gis mu rëy ñuul rek dañ ko tuddee tan déedéet ayohaddu deefu ndim laysan muy gaynde hmm. kullu ma mustasirin bépp aje gaynde gayndalu hmm. du rab woo feeñ ci fu lëndëm rek hmm. nañ ko tuddee gaynde ñu doo ci saayir te sa layoon ñàkk a xaajoo ci maana sare ko soobu nañ ñoom junay waxis bu jaa ci kunan yooyu fii man ajin ciw yoon ne alam woo xeexalamam mas mu katun luñ yëkkati li saalikiina ñaan way soobu yi mu abadin yoon wari wu ñu ci seen daraja yii ci lañ tegee ci yoon wi nga xam ne ay enlam yu kone la wu xam ne wu mokk la maanaam wut yàlla boo koy def yaa ci taalimu nabi sallallahu alayhi wa sallam baana kullu jaafin kaasifin aw anitin mutaharrifin mutasaddidi waa min jahoolin laysa mubsira hujjatin yawman wala ahlal huda bi muqallidi li tegu dama koy laa samat bi ka himmatun sabaqatun li suluki manhajihim fa baadir tursadi mattun anaaja sidqi wasudut fawqahu karabal mahabbati waxtasim wa tajarradi وصدت فوقه كرب المحبة واحتسم وتجردي ولتل غربا من حجاك بملة فإذا فعلت فغير مفترد بدي loolu day na dafa wax ne yoonu tasawuf yoon la woo xam ne ay alaam zaahira la am te mooy jaar fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon rek imaamul Junayd mu ne hmm. attariqu ila llahi hmm. masdudun illa ala almuqtasina athara rasulillahi hmm. sallallahu alayhi wa sallama mooy joti ci yàlla ku ko bëgg yonent bi awoon nga waaw waaw soxna mooy sunna dégg nga mu ne attariqu ila llahi masdudun illa ala almuqtasina athara rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom Junayd loolu la wax waaw mu ne joti ci yàlla ku ko bëgg yonent bi jaaroon fa ngay jaar foofu nag mooy sunna dégg nga danaa joti ci yàlla ku ko xamut tudd ko lam tudd taxul muy joti taxul mu dana xam na ko afaru baqa ilin fulaanun qad wasal lam yaalamil wusula min ayna hasal moo bëri waaw waaw waaw a a ne diinu ci yàlla pur la te ko wax xam nga yan melo a seet ci nit wax nit yàlla loolu mooy waxi lan waaw nit yàlla ko doyee ci a waaw waaw nit yàlla nit dana ko doyee ci xool ko suñu sëriñ bi nga xam ne moo ñu xaajale ak bëyima mm-hmm. yi xaajale ñoo ndeg ment yi xaajale ñoo seetaan yi loolu mën na nekk loolu dafa mën a nekk mm-hmm. ah, loolu dafa mën a nekk ndeg ment ndeg ment la ah bëyima bëyima la seetaane seetaane la mm-hmm. te sëriñ mooy xaajale nit ak yooyu waaw mooy xaajale nit ak ah. ah, yooyu xanaa balaa ngaa doon nit ñàkkaado bëyima xanaa balaa ngaa doon nit ñàkkaado ndeg ment xanaa balaa ngaa doon nit ñàkkaado seetaane te sëriñ moo lay xaajale yooyu loolu la bu baax rubba qaa'ilin fulaanun qad wasal lam ya'lamil wusula min ayna hasal dafa bëri lool ne qad dalla sànku na xanu walis yoon woowu kullu jaasin jëppaaji beccingal kaasihin kuraaji nëbbu nooneel mu ne yoon la wu xam ne kum jaralut lu ca mën a aw aw xaalitin walaaji juum mutaharrisin ku daaji may mm. mutasaddidin ku daaji tat mm. na doon itam kuréer mm. lu ca mën a xaw fokk rek nga xam ko fonk waaw ah. dégg nga baax mu ne yàlla waxal ko fonkut ba dafa bëri ko xamut dafa lu ca mën a xaw ndax yi fëkk nit dafa bëri nga baax a baax a baax nit bu bëgg a jëm ci yàlla bakkanam wàllu wërsëg la ah. ko nag ah, nga diw sàngam am na nangam diw sàngam su fekkee gàllankoor baax na su mm. fekkee mën na gàllankoor mm. mu coppeeku wóor a dig àddina ah mm. li nga dugg li nga bëgg a dugg soo di sàngal defoon soo di sàngal defoon di nga di sàngal fekkiwu dara ah dina bu baax a baax a baax noonu de la koy defee su ko jotee mu gàllankooree ko matt yi muy dajet ah su ko jotee bu da bu dagal bu natt ñëwee mu bàyyi xel ne du ko mu gàllankoor ko ci tàccee natt ba na yoon laaj. Mm-hmm. su ko defee nag wàllu wërsëg dañ koy def atawakkulu alallahi xam ne séddale na ba pare wàllu wërëb yi àddina dañ koy def atafwid ilallah dañ ciy jaay sa mbir yàlla xam ne dogal na ba pare wàllu natt dangay muñ dañ ciy jëfandikoo sabru ndax muñ ñu la ànd wàllu dogal nga jëfandikoo ci arida bil qadar yooyu nag soo ko xamut doo ko man su la jaralut doo ko def waaw xam nga li ma la wax de ah yooyu soo ko xamut doo ko man su la jaralut doo ko def moo tax mbir rek mu la fekk si rek nga xam ko it nag xanaa xabdal la sànku la an wëlis yoon woowu ku la jaasen bépp aji baccingal kaasi yoon ku raaji nëbbu noone mooy kun jaralut du jamono de aw xaali tin walaaji juum mu taxarri seen ku raaji mooy wala koo xam ne boobu moom tegee da xamul yoon nga dëgg-dëgg tasawuf dun mooy dapp daate du du loolu du tasawuf nekkul ci dapp daate ay yére loolu du tasawuf dégg nga waaw hmm. ah, tasawuf nekkul ci bala ñu ne xëles mel ni ab daf ci nit ñi loolu du tasawuf hmm. déedéet dégg nga waaw loolu du tasawuf de loolu du tasawuf de waaw hmm. ah, lay sa tasawufu ay sagar dapp daate ko ba mu de am mbugg mel nii lii mel na li nga sol du loolu rek mooy tasawuf wala bu kawuka in xallal mu xalluuna wala bu waykat bi joroo mu neex rek nga jooy du loolu mooy tasawuf de wala siyaahun wala yoogu naan damay daanu leer wala raqasun wala tarabun yooyu du tasawuf wala taxaatin kaan kasirta meñ noona yooyu dara ci du tasawuf asaabu nabi ñoo fi gënoon waaye daanu nekk de daanu leer yonent bi bu daan wax ñëpp dañ koy déglu pare na lu mu santaane rek dañ koy def lu mu xaare rek dañ koy ba lu mu wax rek dañ koy jël salafu baax wax ndax yonente bi bu daan wax ñëpp ko daan déglu kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallama ida takallama atraqa julasaahu kaannama ala ruusihi min tayr te loolu ku baax a baax a baax waaw dama dëgg yàlla yonente bi ak lu mu gën gën gën ñu tutam waxam ni mu demee mooy dëgg lay xame mu jot a wax muy ko wax su ko defee ñu ko koy wax hmm. war koo déglu hmm. jëriñoo ko loolu la liggéey ba lim ci war a liggéey mat yàlla wàcce ko mu dem hmm. liggéey bi mu dénk ko ñun ko dénk teg ko ci loxo yi mu war a tegee te moom la maa wal ummat subaana ñoom wax dëgg jot ñu wax loolu lañ ko fee su boobaa ñooñu ñooñu waxaatil nag hmm. pour ñu jëriñu hmm. dañoo déglu comme la ñooñu doon déglu hmm. buñ santaane ñu def buñ aayee ñu ba bu amee fuñ waatee ñu jëm ko bu amee fuñ tere ñu mooy ko waaw te loolu baax a baax waaw. waaye buñ tàmbalee wax dëgg rek nga ne xëy na daa def pour ñu ñu xool ne moo tax la du nit ak neen loolu mooy lan yooyu yooyu yooyu mooy lan loolu mooy lan pour ñu yow du la nit ak neen nit nit benn nit ak neen lu mu ko wàññi yow nga nit ak neen lu mu la wàññi sama yow nga nit ak neen lu mu la wàññi kon waaye loolu wàññi dara te loolu ko xam nga dafa xaw a doy waar. nit da nitul ngeen lu mu koy wàññi yow nit lu mu lay wàññi da la wàññi dara. xaw ma wàññiwul la dara. wax dëgg yow nit kenn demul wàññiwul ko dara nit benn nit gën a ko góor baaxee waaw. loolu bu baax a baax. yooyu yëpp réeré ko waral rek. waaw ah, waaye ku xam ku xam ku xam nit mu war a xawee ci yoon du def noonu yooyu yëpp mu tasawuf. man it tasawufu am tasawuf bila kadarin wa tatbaa al haqa wal qur'ana wa diina loolu mooy tasawuf wa an tura xaasihan lillahi muttaiban ala sunubika tuula dahri tuula dahri maxsuula waaw te kooku ki ci nekk mooy ki nga xam ne sax fexe na ba lépp luy kajabal nit rek muy ko daw fexe na ba tànkam mu teg ko ci siratullahi almustaqim fexe na ba nekk nit koo xam ne jàppewut boppam lu mooy ak jaam ci jaam yàlla yi rek te itam nit koo xam ne li mu yàq ci gannaaw day na ko xalaat nu mu a jamono bi tammatu sofiya boobu mooy tudd na yàlla ko de am dëgg yoo xam ne ku ci dugg na yàlla ko yoo xam ne ku ci dugg dana yàlla ko man daal man daal jëm ci yàlla xoofa sëriñ kooku daal man xam xam ku yàlla xam ko daal waaw jëm ci yàlla xoofa sëriñ jëm ci yàlla boo xam ne ci yàlla sëriñ bi lañ ko defee man daal loolu xam xam daal loolu man mu xam mukk moom gis nga ko bu baax a baax. waxaana alaaji gumbo. jëlee leen ku daa ji réer. li soxla basira. xam nga la xol. li mu gisee dëgg muy dëgg. li caaxaan muy caaxaan. du mën a sax ci topp dëgg ak ba caaxaan. moo tax nit dafa war a am basira nit soo amul leer ak xol xewute. bu mu xamee dëgg jii ne dëgg la. xam caaxaan yi ne la. du doon kuy ànd ak dëgg da ba caaxaan. dana wax dëgg yàlla ku bëgg a jëm ci yàlla mm-hmm. fokk si nga topp dëgg bàyyi caaxaan maanaam lay sa mub sere hujjatin koo gis lay mm-hmm. man bis mm-hmm. wala bi ma xali den duuma aju roy xalal wu daal moom njub ñun moom benn dafay xam lu leer jàpp ca xam ba wala mu gis ku xam lu leer mu jàpp ca kookale gis nga baax a baax ku xam lu leer kum de maanaam la bëri jàngaloon nañu ko dégg waaw ah, jàngale na ko ba mu leer waaw ah, dañ koy romb ci buntu bi léeg-léeg waaye moom wax na ko ba mu leer ba mm-hmm. dara defu ko waaw. Ah. xam nga daal wax ne. wayas alal xalamaa mooy nit ki bu warul da def lu xamut lu ci yàlla xatte mm-hmm. mooy su xamoon na laaj borom xam-xam yi. Mm-hmm. wa yaqtadiya bil muttabiina li sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne muy rey ñu topp sunna si yonent bi mooy allaziina yadulluuna alaa taa'atillahi wa yuhaddiruuna min ittibaa'i saytaani ñun la waaw. koo xam ne daf lay wattuloo seytaane dala dala woo ci topp yàlla dala woon nooy toppee yàlla kooku mooy ku ñu kooku mooy kooku mooy ki nga war di defee kooku mooy ki nga war di topp waaw waaw ko maanaam dala wattuloo seytaane dala woon nooy rafetalee sa topp yàlla kooku mooy ki nga war a topp waaw dina ko baax a baax waxtana lay sa doon moom mos bi refu jotin mu daal di gis lay amoon gis wala bi muqallidin du mu waaji roy nit bu ngeen àndee mu toppala ngir yaakaar da nga ko war a dimbale ba mu nite su nitee ba xam ne lu nga yar ko ci nekk ci loo xam njëriñ ngeen ànd ci yàlla bu ëllëgee bu ku ne jëriñoo su baa ko xaritoo ga ko waxee waaye nit boo ko yoree wut noonu bu ngeen àndee te doxalee noonu itam ànd ak yàgg yàgg yàqu ànd lay ndax ndax lu la may ci nit rek boo waxee nga ñàkk ko te ndax moom duñ ca dëkk. nit moom bu defee ba deewit bu defee dana yow. moo ci nekk moo ci nekk seen dëkk waaw xam ne moom bu defee ba deewit wax dëgg yàlla bu defee dana yow waaw. ko baax a wax nit tey tey ko fi naree bañ def ci yow attan ci yow lu ne lu ne lu ne mën la koo defal dinañ a mu lu ne mën la koo man la ñaqal man la jox alal man a talaat sa njëriñ man a bay sa service bu ne lu ne ko ci yow teranga mu na xeeb na ko waaye nag yow nag ànd gi ci kaw nax rek nga ko teg da nga